non koor la ak ci yàlla kon def naa ne saf na de waaye dafa saf loolu nga wax yow boo koy wax sax léegi nga saf ak ah, koor kan moo ne ñu kan moo ne ak ah, koor koor ah? ba saf yow koor mosoo ko woor ba mu àgg te te maa ngi yow a yem maa mel ni yow rek donc waroo ma ci xas yéemi na lool de moom lool lool lool moom tay dama teel a sonn tey moom ku teela a dog laay ok ba dafa saf dafa saf ak doole nañ ko def comme d'habitude rek demagul fen comme d'habitude rek bu 6 jotee rek ñu dog ko avant gars yi du ndogu ñu ndogu bu yàgg tey moom su may naanee mooy sama problème su ma war a naanee rek mooy sama problème non yéeme na xanaa waaw ni nga defoon keroog sa système boobu sama système la raxas ba mu set root ko pour dugg sangu tànk ci naan ba sama yàlla yàlla jàmmal ma ma génn sol sama yére. ah waxoon moom moom nga def keroog. non mais yooyu bàyyi naa ko ah yooyu amul sens. ah amul sens non nga def tey de booy. waaw teel a mar tey. wóor na yàlla waaw teel a mar. sama siwo mu set sama ndox bu set dugg mel ni kuy sangu naan ba yàlla jàmmal ma moom man doo ko def ah du ma ko def ah mais ah, doo ko mais def nga ko ko baal ma def ko mais dinaa ko def tey de damaa mar tey xiifu ma mais damaa mar damaa mar ma xëddee moo diis cere laa xëddee war xiif mu mais damaa ma damaa fàtte naan bi ma demee bay naan si la laa jéggi jàkka ji ñuy kii nii la instant bi sax gaañ maa war a dem fële place place la amoo baax lu ma la expliqué woon. ah sama ah sa toos bi. waaw fi mu nekk noonu. yow liggéey boo xam ne tey nga dem suba doo dem. Ah, ok du liggéey. il faut ma dem xam nga rek bu dëgëree nii parce que lu mu gàtt gàtt gàtt booy wàcc na la mandat benn affaire boo xam ne nga ci mën a régler say ndox ak yow. ak samay dóor ak samay mat. wax dama bàyyi benn yoon laa xëy si garage mécanicien ba mais dootuma ko tollanti. da koy bàyyi doole koy def de tey man def ma dara sa waay moom moom persigne gars yi koy jox yére muy fóot man ma lem ñëw paqueté kii des fois ma samay dóor samay am xaalis xanaa xam nga dafa am xaalis te liggéey nooy mais da ngeen di fóot wala man comprendre ma yéen yéen dafa am ñoo xam ne ñooy fóot affaire yi nice ci ginnaaw ñoo koy fóot am ñoo xam ne ñooy passé affaire yi man mu ñëwee ma paqueté leen ko te liggéey yomb na kon marqué affaire yi liggéey yomb na ci am ay dóor yow daal fexeel moom li ma indi ay yére mbaɗɗon alhamdulillah barikal ɓooy affaire o ba léegi paregu affaire bi yow laa doon bëgg a woon yi léegi yëre bi fóot nañ ko ba pare weer nañ ko may def wow rek moo ci des bu wowee rek ngoon cinq boo ñëwee ma jox la ko loolu du problème booy booy xana naan min sab nijaay moom boole yow man jaabante ale retour mi waawaa ɗum komi koor dama woor nag non mi haa ah, ah, la moo xew bu ma saagawaate nga naa mi haa déggal li ma la wax sama yére hande hande tey suba ka euh, gasi. sama eh, yéer na ma ko jox di nga jot sa yére fóot nun ko ba pare ba weer ko dafa woogul. ah xam nga a naaj amul. booy daal booy woo. kan nga sama koor. waaw jaajëf waay jàmbaar lan moo xaw. lan lan moo xaw. lan moo xew waaw benn yére la ma joxoon a ko doon booy ah, ah, toto. dama dama nijaay moom boole moom. waaw joone o kam yi o. waaw mu ma am na moom day balaa si day bala place yi sari maanaam day day fóot ah. day fóot anani loolu ma ma jox ko ko moom mu ne ma ngoon ngoon ngoon dina fekk mu pare mhm. ma ne ngoon mu ne ma affaire daal kii naa ko weer naa ko man ma ñëwaat fi mu ma naan ay wow ngoon ngoon ma jox la ko man sama liggéey amul ay caaxaan ngoon ma jox la sa yére dafa woogul rek. yore la la costume la wala la non non ab sabadoor la. kooku tey du conférence waaw conférence kii kii la am suba. Ah, ah, moom ngay sol conférence bi moom bu ñu am. conférence daa am moom ngay sol pour ma cokk bu yër pour. ah nee na conférence nee na la ngoon kay conférence suba la di nga si jot. waaw Paa waaw di nga si jot incha allah waaw booy. waaw gas yi de ultimatum. jeex na waaw jeex na. gas yi eh, d' accord gas yi ala problème. ak ci sëñ Touba di nga pël yi kuy dugganteeg ñoom rek yaa ngi ci yore. dañ lay cor dama leen a ñemewul. cor lañ lay def yow nag booy fi déglu ma fi ma sigal eh. loolu laa la bëggoon wax booy yàlla su naara nga ne sa nijaay bi baay ba mu wóor la teg la ci place baay jéem a la sax te teg xel bi nii nga wàññi ko tuuti sax wala booy teg xel mu set. non non non non booy fii pël yi jarul kii de lay coor de lu leer laa la wax coor la ak naan ndox la ñu yemale. maa ko ëpp conférence foofu man maa ngi nii demee demee demee damaa war a dem conférence. mooy ak sa booy boobu. sa conférence booy bi. waaw am ah, man ci invité yi laa bokk. il faut ma ma ma teel a dem. waaw ci laa nekk nii mais kon ba tey mënu ma la gunge moom wax dëgg yaa mënu ma la gunge parce que xam rek damaa yorul yére bu baax en mooy loolu yoruma lu ma gi lu ma demaale xam nga da ngay dem jàngkat yi ci conférence léegi dañ lay comme léegi comme Sorano ngay dem ñu lay tagg wala ñu jékki-jékki di la xool di jàng Seydina Mohamed di la xool mooy may ma doo def lu dul may leen donc demal lekk gérer lekk mais sa booy bi moom booy bu waane la kooku kooku moom sa booy ngay rëpp moom mu si gën a soof kooku waata la fiis daal ma àgg fële waaye jéem a lijjanti yenn bagage yeeg yooyu waaw ah, baax na ça après mooy loolu yow foo jëm nii ah, man na am ko may xaar nii xanaa joo bi woo tey waaw ah, kataa laay xaar man mécanicien bi naa de daa mel baal ma ñëw daw léegi après ñu déggante rek dégg nga ok rafet na dama jéem a jox kii nag yérem bi quoi booy fiis fiis joxal kii yérem bi la expliqué bu ñu demee ba àgg di nga xam man maay kan te man leer na mu ni nit ñi dinañ am fu ñu ma teg. dëgg la de. loolu du problème yow xoolal nañ dem rek. waaw wax ji moom. salaamaaleykum booy. naa léegi moom yére bi léegi war naa mën a wow ah booy bul dof dof lu yére bi léegi xam naa man man yow sa waay wax naa li ma lay wax fële ma ko doon weer wóorul ma weeroo ko nii di doxantoog moom ci naaj bi bëgg moo yow kay man man waxuma ko loolu sax yére poo xamante ne am na 48 heures woowagul man wàqaguma ko sax nga def ko ala modd waali sekk nii eh nga wàññi ko nii taaye ko tollale ko sax yaram eh booy dëgg neex booy sama yére déggoo li ma la wax sëñ bi pulo yow xam nga ni sama xarit nga sama gàmm nga sama doom day yaa ngi dégg yére bi bi ma ko jëlee fóot ko ba mu set ma xam ne fi koy weer foofu wóorul parce que y a beaucoup de indiscipline yaa ngi dégg voleur yéeg yooyu dañ fa bari ma jël ko man weeroo ko ci xoolal eh, ci eh, ba xam wow na. Eh, yow taxawal yow loo weeroo sa yaram. eh booy wuy ma. nan nga weeroo. bàyyi ko foofu rek yow taxawal ne may nga gis sa kër moom dinaa la expliquer taxawal nii tuuti fii laay taxaw waay ma. booy taxawalal yow nga nga nekk fële nga naan ay voleur dañ koy sàcc. waaye nag sàcc bi sol na sama yére jooni tottam yaram booy. booy tottam yaram. tottam yaram. yow taxawal eh nettu ko bandum min xamina na pullo ah jàppale ma ngir yàlla suturaal ma ki ma àndal nii nga bëgg ma demal ngir maa la ko ñaan trente minutes do fekk ma kër ga ma jox la sa yére dimbali ma rek ngir waaw déglu awari discours ma awari discours ma argaay ah? kaay fii kaay fii rek def na si awar ma expliqué la ardo rek ardo waaw kay yow yow mënoo nga sonn ma ni la yow doo noppi tax ngay noppi. xam wax na day fee xam nga nag li fee nag wax na day fee nag. wax na day fee booy yéram oo rek mbal la dee rek. laa ilaaha illallaah. booy yére bi yoo yaa waay. rapidement possible. yow su mili balaa mu lay rendi xam nga ni ñi dañoo gaaw ci rey. ay yow yoo yow na gaaw ngir na gaaw. laa ilaaha illallaah. yow gaawul ki da lay rey. booy wala yow doo gaawal gaawal gaawal awana dooral gaawal gaaw seeda tey laa jom man kay gaaw nekk diw yaa ne ko may wax na mu budil ko def ko ala wa ala yow yaa ñàkk jom yow sañ sa ba mel ne suba mi ànd ak man ndax bala moo ma ko yow am nga sens ok jaraani lem jaraani lem jaraani lem jarul lem bàyyi jom bay bëgg a dee mën a fen merci lii rek ngeen di def di wër di fen rek yow yow gaawal suñu yëre jàmbur bi اوكي merci. ñàkkul jom xool ko. yow bee nii gaawal booy gaawal gaawal yaaw mi yaaw mi gaawal wit. xoolal ne ne ne xam naa ni de. booy gaawal. xam naa ni porte plainte de. mën nga gaawal ak mën nga mën a gaaw kay. yow man maa lay porte plainte yow gàcce gi nga ma teg man maa lay plainte yow. booy yooyu yow an na ne noonu. man li nga ko def à la mode Wally Seck bi rek moo métti man mu ne ma ñàkk sama yaram. yow yaa am fit sax yow man loolu sax moo may métti booy. bi. nga dem wàññi ko ba mu yem ci yow. yow leer na ma ne cinq ans juróomi at bi ah, juróomi at foofu. xoolal nu mu tilimale affaire bi. tuubé ñun wari nañ nag wari daal lañ def. mooy kasawal nga sama tuubé bi yëpp yëpp yëpp yëpp. waaw man damay gépp wala lan. mooy gaawal noonu. conférence ba gaawal gaawal. kii leer na ma ci kii si la sol lan la sol lii. est-ce que jëlee ko ci papam sax mu doon nekk ci moom gaawal pooj kii lépp dara duma bett ci moom comme que am na fitu def lii yow yaa ñàkk jom. booy booy ma nga dindi tubay jàmbur ci yow yaa nga ñàkk jom ne ah man ma sel man ma sel man ma sel c'est nga a na gaaw. yow li ñu dafa baa ah ku jox mooy sax ko bonus nu mu wonaat bonus gis nga waa ji kaw ma sa copine la kaw ma dama koo fóorloo sama yére léegi moom barki démb ba léegi moom mu ne da koy weer mu ngi ni weer na ko ci yaram weer yi naa ko ci yaram. waaye yow da ngaa am fulla. Eh? ah ka jaaraam. da ngaa am fulla a jaaraam a jaaraam. a jaaraam bu ma rombaan nga naan balaa si séer nan ok jaaral. Eh, eh eh eh bu ma xool jaaral nii ma ja eh te te eh eh eh. eh ah, ma ne. ah te te woo doo ko jàpp ci rek. Ah, eh jàpp ci rek ah woo doo. ah eh. woo ah, doo. ñàkk jom nga may def yaramu neen te ma jëm conférence na nga dox jaar na le nag ma jaar ni ànduma ak yow de xool ko muy mel ne mbëru làmb nii. ngembul nga jaar na le ah bu ma topp xamatuma la nag yow xam nga ne xam la sax erreur la yow yaa ñaq personne dafal ne ngay wowal ay yëre jàmbur sa yaram dafal ne. s'il te jaaral na le ñàkk fayda xool ko yow yow yow yow man ma man xanaa damaa gëlëm ba may dugg ci yow doxal nii s'il te man ma jaar na le xamatuma la sama kol boobu na nga ko fóot eau de javel ko andel ma ko nag xam nga fi koy andee. man sama lu may wutee ci ay conférence koor lii mënul dem xoolal lii. eh eh eh yow laay waxal eh yow laay waxal xool ma sama kol andi ko na ko fóot eau de javel ko passé ko andi ko te ko wowal sa yaram nag rek laa yem ak yow ko mi dafa man lu nekk dina ma lu nekk rek dina ma dal ah léegi lii naka laay demee conférence ba ah lii lii lii bi rek.